ayca jërë ngeen jëf euh, sénégalais yi xam naa ni gëjoon ngeen maa gis gëjoon ngeen maa dégg mais damay jàpp damay jàpp ba duma leen bëgg terap, jox ay information damay jàpp trop trop trop billaahi ah euh, sama téléphone sax xam naa nit ñu bëri fi mu nekk nii mere nañ ma eh, maa ngi siy gis ay vocal ak ay appel mais du ma mën jël du ma def nekk parce que damay liggéey bi day xat waaw ni gars yi nag bu ñu ma ko jàppee mais euh, il faut mu wut assistant fan yi naa wut assistant boo xamante ne dana leen jox samay samay samay euh, parce que bi ma bi ma wéree ba tey maa ngi si liggéey bi rek waaw bëgg a nekkaat fu ma nekkoon waaw moo tax amatuma woon jot mooy loolu sama téléphone damay toog deux jours yoo xamante du ma ko téye du ma ko yor aja ñu wax nag tey dama leen indiloon benn information boo xamante ne euh, si wàllu si wàllu làmb la bi message yooyu yëpp bi Sidi Diop bi Sidi Diop jubóoweeg Wally message yëpp de gis naa ko may génnal wax may génnal wax yooyu <laughs> waaw information yi fi jàll yëpp jot naa seen message jot naa seen retour di ah mais waxuma si parce que damay xawoon jàpp ah you know comprendre ngeen waaw waaw loolu moom arrangé wu ma wax naa ko Ndiogu Mbaye nee naa loolu arrangé wu ma wax naa ko Baye Zal jubóo juboo artistes yi waruñoo juboo artistes yi waruñoo juboo bët bi fee jàmm matt sama làmmañ ba waruñoo juboo soo demee États-Unis loolu am fa soo demee France showbiz am fa amul juboo loolu sénégalais il faut ngeen jégee seen xel woy woykat ak woykat waruñoo juboo diggante woykat ak woykat waruñoo juboo mbër ak mbër làmb la mbër ak lëmb sa adversaire waruloo ngeen a juboo parce que yéen a mayente xaalis comprendre nga site internet ak site internet waruñoo juboo comme loolu la parce que yéenay mayante xaalis ah diggante maam Ndiaye ak maam Cobra waruñoo juboo foofu juboo war faa am waaw ah reyante leen de leen reyante waaw waaw loolu laa si am lu may wax foofu acca euh, léegi Baye dafa jóge si euh, combat bu mag a mag Sa Thiès diggante Sa Thiès ak Eumeu Sène def pokola ah ak ki euh, euh, Laurent euh, kii Ndiago xaw ma diggante mu def combat waay yow si Siteu ah ak Tafa Gueye 2 ah journée bu garaaw a garaaw journée boo xamante ne loolu ñeenti journée la woon ci promoteur promoteur mosu koo def promoteur mosul def loolu waaw di organiser ay journée yoo xamante ne ñu ne waaw Baye xanaa mu mu indi mu indi leen ah, ah Ama Baldé ak Gris Bordeaux teg si guy gi Ada Fass ñu naan déet ñu teg si Zos ah ak ak ak ak euh, euh, euh, kii Ndiago ah, list Ndiago ah ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñeneen si si si bi loolu promoteur bu ndaw du ko def promoteur kon Baye Ndiaye da ngeen ko war a ñaanal ah war koo suturaal ah Baye rek rek rek laa gis xaw ma si làmb dara nag mais bànjaay Ndiaye li muy def nii ah dem bi may nekk xale ba tey. ay Gaston euh, ndeysaan sama xarit bi jaar na fi def ko ah Luc Nicolaï def ko keneen ak keneen def ko Ba Ndiaye rek laa gis mu def ko Pape Abdou Fall def ko keneen ak keneen def ko Ba Ndiaye rek laa gis mu jël euh, benn journée boo xamante ne fukki journée xaj na si mu def ko benn ah kon boog dafa bëgg gars yi di mayante xaalis comme yéen comprendre ngeen donc mais nag dafa am loo xamante ne dañ ko sit internet yi ak ay tiktokers yi ak ay Instagram yi il faut ñu insister si PVV Lambu, se PVV droit ben, vidéo parce que duñu promoteur du million, millions millions millions millions ay millions ah faire ko y sponsor yakar, dara ah, il y ah, a ko bëgg image dogal yu leer naññ fi mu nekk nii yërmande amatul defatul amatul dara fi mu nekk nii kuñ ci bloqué kuñ ci bloqué sa scène ah soo woowee promoteur promoteur du la faale soo woowee ku topp ci promoteur promoteur du la faale ah bu bàyyi leen PPV yi ngeen di jël di ko dugal seen compte yi comprendre nga léegi yow soo jëlee soo jëlee PPV promoteur bi su lekkee ba jeex ba une ba une heure ba deux heures du ah minuit mën ngeen dugal ah tiktokeur yi léegi kuñ ci bloqué sa compte nga wër si réseaux sociaux yi naan yi dafa soxor dafa bloqué sama compte Baye njaay na combat bii nii da siy jël journée bii nii ah da jël dogal yu am importance yoo xamante ne ah, leer na nañ fi mu nekk nii PPV am bii nii nii nii ku ko dugal soo amee un million abonné sax day day supprimer sa compte waxuma la bloqué sax mais ni ko supprimer doo fayee ko ci à vie sa compte youtube wa waxuma la tiktok waxuma la li. téléphone yi filmer leen waxuñu ngeen filmer mais filmer leen lamb yi filmer lamb graw. filmer mais après minuit dugal ah? sa ah, ah, combat bi mom de jël ndogol yu nañ nañ yu ima lambam waaw lambam man nag sama yoon nekk si ah damaa xam lu jaadu rek parce que man man mii su ma su ma organisé woon làmb wala benn affaire ah ngeen jël sama image waxuma la booleke sax waaye xoolal Arsène Badiane ngeen may ngeen may kii ngeen ngeen dama leen di porte plainte comprendre nga concentré wu leen si loolu ah nit nag du doo liggéey sa compte ay ati at ay dix ans cinq ans ah ba pare benn journée bëgg la koo yàqal bëgg image jaruloo loolu jarul loolu comprendre nga su ngeen bëggee image ngeen dem for ko si si si kër mbëri mbëri may leen image ah mais bu leen ñëw ba si combat jàmbur ba si p PVV jàmbur bàyyi leen PVV yi ngeen jël bàyyi leen PVV bàyyi leen PVV jàmbur yi ngeen jël bàyyi leen PVV jàmbur yi ngeen jël ok falaay euh, euh, wasalaamaaleykum loolu nag laa leen PVV yi laa bëgg ngeen concentré aussi bañ bañ a jël komba làmbu jàmbur yi waaw làmbu jàmbur yi bu leen leen jël waaw Ba Ndiaye nag ah waxuma la Ba Ndiaye rek mais promoteur yépp def nañ dajaloo waxtaan si loolu waaw waxtaan nañ si loolu wasalaam PVV yi bàyyi leen di dugal PVV jàmbur yi combat bi moom ku si jël PVV ba dugal ko dañuy bloqué sa compte direct wasalaam